ne c'est actualité bi tay qui phénomène inondation yi nga xamantene ne c'est un phénomène récurrent Manam, luy ñëw le di ñëwaat dañ fay luy ñëw le di chaque année rek ñu ne nañu def plan Orsec président jàppale na Mais rappelez-vous, nous avons un plan décennal Nous avons 750 milliards de nañ parce que c'est sur 10 ans 2012 2022 Nous avons déclaré un taux de 66,51% d'exécution Madame, nous avons yo yaay 511 milliards pour mu régler wu. 511 milliards boo xamante ne ne année bu ñëw rek daanaka nga fàtte année bu bu bu fi jaaroon ndax ay souffrance loolu nag muy phénomène bu inadmissible inadmissible tey population yi nekk ci ndox mi waxuma la rek ñàkk nañu fu ñu tëdd. walla la rek ñàkk nañu fu ñu suturloo waaye li ñu war a dundee sax gis nañ ne prix yi dafa yokk les prix de denrées de première nécessité nga xamante ne njaboot yi si la ñuy suturoo nga sombi sa sombi naan nga defar loo xamante ne kenn du ko xam nga naan lu ngay sombee sax muy ceeb ba day yokk waaw situation boobu nag su amé ci réew dafa am exigence buñu wara def pour le gouvernement mu régler ko le plus rapidement possible parce que nak sénégalais yi duñu jassit duñu mbott duñu ay jeun bañ leen di bayyi ci biir ay ndox lolu war na doon taxaway bo xamante ne war nañ ko taxaw très rapidement may fàttali ne le 11 septembre 2020 passé assemblée nationale def une déclaration dañuy def commission bo xamantene né euh, euh dafa jëm si saytu lolu mission d'information la sax pour être précis mission d'information so leen a waxon na fi lu mission d'information boo xamante ne bañ koy bind rek tagg nañu gouvernement bi tagg ci douze paragraphes pour wax taxawaay bu mu am ci mbënd mi ak sax président lu mu déclenché plan Orsec ak tamit lu mu jël 10 milliards yokk ko ci daaw na loolu 10 milliards déclenché plan Orsec loolu fan la toll fan lan lañ ci def moo tax on avait di que nañu une commission d'enquête parlementaire on a besoin de savoir pourquoi nous avons am intérêt nous avons toutes les années ñuy def plan plans plan sec plan sec, nga hors-sec, dépenses c'est des milliards te nous wax ko on a l'impression qu'il y a une volonté de faire en sorte que avons bi bañ fi sec, parce que nous avons des plans hors-sec qui nous yi daf leen arrangé lool loolu dafa sanction mais voilà sanction dafa laaj ñu saytu ko assemblée nationale rôle bu mu war jouer joué joué wu ko commission d'enquête parlementaire lañ ñu waroon def pour que loolu ñu xam lan moo si nekk mission d'information boo xamantene ne ne rôle am lu tax ñu ko pour informer député yi la waaye yéen ñëpp gis ngeen nu mu nous yanu kayit ba ko président de la république en violant le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs Quelle assemblée nationale et le président de la république on est dans quel pays confusion de rôle parce que kërum de ce la ñu nekk ki lay ce moom ngay neexal ki lay de moom ngay def tout pour mu am satisfaction sa yoon nekkul ci ay loi Moi j'ai toujours dit que mbir mi du ay loi du ay règle du ay lenn mbir mi mbirum nit la nit ñi la un député il a la possibilité de faire son travail règlement intérieur may na ko ko constitution may na ko waaye suñ ko defaree ba mu yànj moom mu teg ko fële dem def lu ko neex pour ses orientations politiciennes je pense que tooñul boppam rek mais askan bi la tooñ moo gis ngeen yéen ñep deglu ngeen ko déclaration bu xalif général des Tidiane def seigne Mbaye si Mansour ñaanal ko mu yàgg fi lol te wér déclaration bu mu def jëmele ko ci député yi wax ju mu wax yàggul lii am te lii ñoo mënoon nañ ko prévenir depuis parce que su amul épée de Damoclès si bopp nit ñi mu leer na la ne soo defee dara am na lu la siy fekk fii ak amul loolu nit ñi dinañ ko ne def leen neex su def nañ commission d'enquête parlementaire gis si loo xamante ne wute na ak lu amoon loolu dina dissuader ñiy def plus tard su dee of nag autosaisir na def enquête yu war loolu dina dissuader ñuy def plus tard waxuma nag le président Macky Sall qui a la possibilité avec ses organes de contrôle def mais amul volonté c'est ça la vérité